ginnaaw xaaj bu njëkk bi nga xamante ni mi ngi jëm rek ci xeex jàngoro jii di Covid 19 comité locale de lutte contre le coronavirus bi nekkee ci Ross Béthio dal dee dajaloo rek ngir tegaat yeneen pexe yu yees yoo xamante ni day jëm ci tàmbali deuxième phase bi ci daje boobu boobule ñu ràññee ci ay ndaw yu bari moi xam muy association wu étudiants yi moo xam tamit muy jeune yi nga xamante ay étudiants la ñu nekk ci wàllu médecine ak ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci socio anthropologie ci noonu nag ñu ràññee ci taxawaay bu am solo ki nga animé formation bobule mu di ICP bu Ross di docteur Antoine Ndeki waaye nak ki nga xamante ne moom di di président comité local de lutte contre le coronavirus ci Ross mom moom ma ngay rafetlu loolu le te it di rek nii dana nek dajé bu am solo ngir ëllëgu xeex bobu la. jërëjëf Omar tay ñong ci ben formation boo xam dañ ko commencé euh deuxième phase la pourquoi mu nek deuxième phase parce que suñu premier type de sensibilisation on a fait on a fait sensibilisation de masse massage bo xam ne dem ci restaurant yi gargot place publique yi. Euh, dibiteri yi booru tali bi luuma yi léegi dañuy attaqué deuxième phase moy moy moy visite à domicile avons déjà commencé nañ avons sax ñi def nañu déjà 1068 euh, visites à domicile ce qui nous a fait au nombre de ménages on a 1443 je crois fii parce que mi document yi mhm. léegi man daf nekk en terme de ménage mhm. maintenant ce qu'on a fait encore tey c'est mieux encore parce que dañu euh, zone yi nga xam ne yëpp santé santé moo nekk courage depuis depuis Poncane jusqu'à jusqu'à Rospecce mhm. donc ñoom fi ñoom dañ ne formé pourquoi ñu ne formé c'est quoi kon kon dafay changé ni muy changé mooy suñu suñu communiqué communication bi léegi communication à domicile la mhm. VAD li ñuy def communication à ñoom d' abord ñi nga xam ñoo nekk sur le terrain comment ils doivent se comporter mhm. bu ñu yeggee ñu ni communiqué lan la ñu soxla pour ñu xamal ko ñooñu mhm. donc tey jii moo tax ñu def ko ak docteur Ndeki ak Ablaye ak doc ab Babacar kii suñu ressource ay Alioune Mbaye ñoom ñëpp ak on a aussi deux deux deux ressources encore supplémentaires euh, Barry c' est c' est un étudiant qui est boo xam ne il est en sixième ak Ba aussi qui aussi socio-anthropologue parce que ku nek am nga loo mën yebal yab yab ñi nga xam ñom la forbu formé fait nga xam pakkas bi bu ñu ko jëlee wax dëgg yàlla suñu demee semaine dina am li nga xam moom lañu ñu bëgg ko euh, gis-gis bi ma jëkk am xam nga li dafa nek xalaat bo xamni bañuy gëstu gannaaw ba joggé ci duggu kër yi mo may ñu ñeenti fan yo xam ne doon duggu ci kër yi pour waxanteeg nit ñi ci walu taxaway yi ñu war def ci walu cet gi ak nan lañuy ñuy ci seen biir kër walu fièvre bi c'est lañuy xalaat ni war nañoo def euh, benen formation jagalé la ko ñi fi nekkoon waaye jegle la ko ñi nga xam ni ñoom la centre de santé bi la ëmb mu nekk fukki dëkk ak ñeent yoo xam ni am na fa ay relais dëgg la amoon na fa ay relais communautaire waaye ñu gisoon ni euh, diwaan yooyu dafay yaatu lool te nag ñëpp war na ñor ci xibaar bi pour mën a fexe ba nga xamante ni dinañ mën a fàggandiku ngir euh, feebar bi mën ñu mucc ci moom waa deuxième phase bi euh, mooy gën a yokkaat nemmeeku kër yi ñu jaaroon ndax nit ki boo liggéeyee ba dem ci kër yi nemmeeku len jox len xibar bi wax len nan lañuy fagandiko war nga fa jaarat xamna ni d'ici 9 jours inshallah buñu yàlla dimbalee juroom ñent fan après dinañu mëna dem ci kër yi nemmeeku ko mais digënté bi aussi duñu tok dañuy fexe nuñu mën def pour mën xam yeen djégo lañu wara defat xeyna nak djégo na nag yi yaatu na ñi xaar comité de développement sanitaire bi ak coordination médecin yi lan la wara yokkat ci walu taxaway bi mo na gën a sensibilisation bi. da fekk kuy dem ci terrain dañ kay wajal demoon na première phase terrain bi amoon na solo lool waaye bi dajee dajeek ay spécialistes rawatina ñi nga xamante ne jàng wàllu sociologie ak ay ñoo xam ne dañu jàng médecine ñu xamal ñu ne xale yi nañu renforcer seen capacité. objectif boobu moo tax tey ñu dajale fii am nañ fi infirmier am nañ fi docteur am nañ fi sociologue ak ñi nga xamante ñoo ngi taxaw leneen ku nekk ñëw indi dara pour dolli ko jeunes yi ak xale yi pour suñu demee ci société bi. suñu demee ci kër yi ñu mën wax ak ñoom loo xamante ni xel dina ko mën nangu xel dina ko.

ñu waxtaan si ak monsieur le maire Amadou Becaye Diop ñoo ngi koy sant di ko gërëm ak autorité si nekk Ross Béthio yëpp ñu war leen taxaw pour na la ñuy def ba saafara jàngoro jooju noonu nu am juróomi fan yoo xamante ni nag taxaw noonu pour taxawu leen toggal leen ay reer yoo xamante ne da leen jëriñ reer yi nag añ la heure daan togg waaye reer la objectif bi loolu la woon bi nu paree léegi nii phase bi nu toll ñoo ngi ci pare noonu ndax mii am na lu mu jox daare yi def nañu formation suñu paree daan demaat ci daare waxtaan ak ñoom xool seen jàngoro lan la pour ñu boole ak suñu plan d'action si suñu deuxième phase bi incha allah. ñun bi ñu toogee doomu jàngoro dugg ci Sénégal automatiquement ñun mëntuñu woon rester les bras si lañ toogoon à l'intérieur ñu xalaat xool na la ñuy def ba taxawu taalibe yi à notre niveau. mais bi ñu amee information encore une fois que ni comité de santé de Ross Béthio ñoom dañu taxaw pour xeex loolu ñu ni ah nañ dem rallier wu ak ñoom pour euh, ànd ci xeex bi. ce que euh, par rapport à la communication visuelle moom day dem ak euh, contexte et étape aussi parce que première phase bi ñu tolloon avant de yi di xam lu xew euh, si lañ defoon ay flyers mooy ci côté visuel bi automatiquement képp ku gis flyers euh, même su fekkee mënoo lire di nga gis ay images yoo ce sont des images illustra illustratives nit ki bu ko gisee xam ni lii nga war a moytu lii nga war a def lii nga war a bàyyi pour pour pour mucc ci jàngoro ji léegi loolu def nañ ko muy flyers yi mooy euh, après def nañu ay lakos def nañu ay t-shirt ci côté identité visuelle bi aussi pour que nit yi ñu xam ñii ñoom ñoo chargé wu euh, ci ñi ñu ñi ñoo chargé wu ci sensibilisation pour la lutte contre le coronavirus léegi comme que dem nañu ba ba ba def yooyu noonu yëpp maintenant dañuy jalaat ci benen étape moy lan pourquoi pas euh, ñu ci doon xalaat def ay euh, vidéo manam def ay spot yo xamanteni ay séquence lay doon séquence dañ koy def ak personne yi nga xamanteni ñom ñoo nekk dans la localité pour mom moy gëna am impact ak image yi nga xamanteni gaay dañ koy télécharger fenen di ci gis ay tubaab wala ay yenen nit légui buñu gisoon supposons benn benn benn euh, tonton Babacar ndjay di di di wane nan la ñuy raxasoo et tout ça donc non seulement mi ngi enseigner mi ngi sensibiliser aussi nit yi dinañ ko xool euh, par curiosité. d'abord avant ma ñëw si question yow dama lay remercier aussi di di reconnaître aussi di reconnaître aussi liggéey bi ngay def par rapport ak commune bi. donc vraiment kontaan nañ si trop quoi. bon par rapport ak ñu étudiants yi donc euh, suñu participation. bon face à l'ennemi je peux dire donc mën naa ne kii mënu ko kii mën ko nuyee plus, euh, c'est notre devoir le plus absolu. Étant des étudiants, on doit toujours être des acteurs de développement. Si je n'ai pas acteur de développement, c'est côté pédagogie, social, santé, éducation, et tout ça. Donc, euh, sur les réseaux sociaux. Mais on ne va pas s'arrêter là-bas. Donc, euh, après avoir postulé ces informations sur les réseaux sociaux, là, on va, on va être dans le terrain, sur le terrain du maïs donc euh, bon ñu demee terrain bi def ay campagne de sensibilisation surtout boobu Bon vraiment nous en tant que étudiant bëgg nañ ko parce que comme nous, nous ñëpp donc loolu mooy sax combat bi gën a efficace. bon oui euh, comme nous l'avons dit, nous rek ñu euh, deuxième phase de sensibilisation et que tout le monde a compris que la gravité de la maladie et que ce qui fait que au-delà que tout le monde soit impliqué il faut que ku nekk ci lu mu mën ci lu mu mën a apporter mu apporter ko ci quoi justement de ci sens boobu loolu nañu lañu lañu en tout cas ñu ñëwoon euh, indi suñu pièce à l'édifice ci la ñuy continuer nii pour vraiment euh, dimbali ñi nga xamante ne ils vont sur le ñu am message bu ñu yóbbu pour que population bi soit beaucoup plus sensible à la situation quoi ah oui euh, par rapport à cet élan de solidarité je, je, je dirais tout li nga xamante ni dafa nekk loo xamante ni que ni ça doit devait par euh, ça devait euh, da waroon a ñëw depuis très longtemps parce que ñun dañu waroon en tout cas gën a saxal gën a nekk ci li nga xamante ni mooy service à la communauté mooy communautarisme bi solidarité parce que je pense que ni fini nii loolu moo développement parce que dañu nekk ay population population vulnérable pour la plupart donc euh, élan de solidarité bon malheureusement on a une ba maladie mais avec la maladie ça s'est renforcé et je pense que ça permet aussi de euh, renforcer le vivre ensemble et le lien social Il suñu a dogal na nu tàmbali depuis le 15 mars euh, yàlla dogal nu de ci joxe woon ay kik defe naa doon nga joxe ay chiffres sax ki démb ci 334 kik yoo xam ni 43 kik yoo xam ni joxe nañ ko fii ci biir commune de Ross Béthio mais même village environnant yi jox nañ leen ay kik kon tey bu ñu doon calculer chiffres yi day nekk 400 et quelques kii yoo xam ni joxe nañ ko ndax villages environnants yi li tax ñu mën leen ci boole moom mooy ñoom yàlla suñu borom dafa dogal ñu bokk ci centre de santé bu Ross Béthio moo leen polarisé loolu moo tax sañu ñu def dara te boole leen si ndax ku am foofu malaat da nga koy gàddu indi ko Ross Béthio kon ñun waa Ross Béthio jàpp nañ ni nu ñuy sensibiliser suñu bopp suñuy njaboot non lañu war démé fofu sensibiliser len waxtaan ak ñom pratique d'hygiène yi itam ñu fexé ba nu comprendre que ba mën ñom itam di jëfé fofu déjà boy xol formation bi ci biir ñi fi ne bare nanu du waa Ross Béthio rek am nay waa Gandiaye am na pomme gendarme am na Tilène comme am na waa Raynaabe 1 bi nga xamante ni yàlla dogal na bokk nu ci ñun euh, Raynaabe 2 bi nga xamante ni bokk nu ci ñun ak ñeneen ak ñeneen te ñoo ñëpp li leen ci boole moom mooy 15 euh, dëkk la yoo xamante ni ñooñu ñëpp tey dañu ñëw bokk ci li nga mooy centre de santé bu Ross Béthio seen i malade bu la bu leen amee fii lañ leen di indi tax Euh, tey booy xool nu ngi doon def di joxe ay kick di dem di jàngal ni ñi nu ñuy raxasoo ci marché yi comme ni ñu ko doon waxee ci gargot yi ci atelier euh, formation professionnelle yi ak yu demee na ko noonu mais ñu dem ba ci biir nu gis ni euh, xëy na danu joxante woon rendez-vous le premier avril war na nañu daje nu xool nan la ñuy def ba waxtaan xëy na temps bi xaw na xat ñu avancé diggante la trente avril diggante la 30 mars ba le 4 avril ñu def ay VAD VAD yi ñu doon def nag li ñu ci jublu moom mooy dañu départ Nous dem quelques rek 61 le premier jour bi ñu def un test xol bi est-ce que comprendre nañu li est-ce que nous nous nañu ci nous ji ni mu ni muy est-ce que nous ñu ngi télévision est-ce que nous ñuy xol ci télé bi ñom itam bi nu demee malheureusement yàlla sunu borom dogal na Omar euh, Ross Béthio man def naa 61 kër bis boobu juróomi kër laa fekk ñoom ñu teg ndoxu raxasu ñu ni kon jaadu na pour nu tëgg ci benn plantaction bu cinq jours boo xamante ni bii xëy na euh, toogunu woon ak kilifa yi waxtaan ci ak ñoom mais nan ko ci dolli buñ ko ci doolee dina permettre xëy na nu atteindre sunu objectif yàlla sunu borom dogal Euh, bi biñ koy def ñu fexe ba am ay jeunes yoo xam ni engagé wu nanu ñu def sept équipe équipe bu si nekk am na trois jeunes yoo xamante ni ba deux ñoom ñoo ci ne ñoo ñëpp bi nu mobilisé wee nekk nañ dix-huit jeunes ñu tas si commune de Ross Béthio ci quartier yi quartier bu ne ñu yebal fa ñaar

bi nga xamante ni dafa ne ci biir kër gi nga jëlaale turam ak numéro de téléphone ak li ni moom lay liggéey loolu dina permettre sax nga xam dëkk dëkk bi ñan ñooy ñi ni dañuy def rek pour mën dundal seen ay njaboot te loolu lépp tey euh, feebar bi permettre na xëy na ñu ngi ñaan yàlla yàlla suñu borom jeexal ko mais permettre na xëy na ñoom ay base de données yoo xamante ni fiable lay doon yoo xamante ëllëg euh, le maire de la commune de Ross Béthio am naa yaakaar dootul jaaxle ci population wala chef de ménage yi dañuy gën a c'est parce que parce que dañuy gis communautaire dañoo bëri comme communautaire dañoo bëri dañu bëgg ñi nga xam ñoom ñu dem su le terrain di sensibiliser yi bu ñu demee ñi ñuy sensibiliser d'abord ñu xam ni ñoom ñu nekk si terrain bi ak ñoom ñu ne fekk si kër ñoo bokk rôle bi c'est-à-dire ñoom ñëpp la ñu war di sensibiliser cela veut dire quoi tey jii dañoo leen wax que ni tey jii bu ñu demee si kër yi maintenant suñu gisee koo xam dafa amee signe yu mel noonu dafa voyagé woon wala am na fu mu dem foo jàpp nañ ni am na ku mu nekkal en contact ñu ko wax duñu stigmatiser maladie yi cest dañu bañ yaakaar dañu leen stigmatiser en fait su communication leeree sa bopp rek même ñi nga bàyyi si kër gi soo fa jaaree beneen pare dañ participer ci sensibilisation